aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu leen nuyu baal di leen ziar di leen ñaan yàlla aw euh, yi émission trois questions bi def ci alxuraan ak sunna naa ne aw waxte xaw naa rataatu maa ngi koy jégalu kon xam naa incha allah su fekkee ne cheikh bi mi ngi fi mu nuyoo bu ko defee ñu tàmbali liggéey incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk yi eh, di leen nuyu Cheikh Aboubacar incha allah ñu tàmbale programme bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu chef ñu ngi leen di dokkeel di la ziar bu baax macha allah di la tatagal waa suñ premier laaj mooy lan mooy wasila ci lislaam mooy ndax nit ki dafa war a mën a am fu mu jokk yaa ngi dégg ba tax mu mën ko am fu mu ko àggale ci yàlla loolu la ñuy laaj loolu mooy suñ première question salaam wa rahmatullahi wa waaw laaj bu njëkk bi lan mooy wasila ci lislaam ndax nit ki daa war a am koo xam ne moom moo koy àggale ci yàlla euh, li njëkk mooy ñu xamle lan mooy bu waa ñu nekk ci turuq yi nekk ci ay tarixa luñ jublu ci ci tarixa ak wasila euh, loolu mooy nit ki dafa war a tënku jaayanteeg nit koo xam ne ku am ragal yàlla la koo xam ne ku xam la ay yoon yi nga xam ne mooy àggale nit ki ci yàlla nga xam ne mën na cee yar doomu aadama yi ñu àgg ca yàlla nit ki daa war a jaayanteeg ku mel noonu bu ko jaayanteeg moom ba noppi ne da koy bàyyee boppam bàyyee ko léppam dootul xalaatati dootul amati lu muy commentaire ci ay waxam ak ay jëfam kooku nga xam ne moom la jaayanteel eh, day mel ne ci kanamam comme néew ni muy mel ci kanamu ki koy sang fu mu ko wëlbati mu wëlbati koo fa mu war a fas ci kookee mu jaayanteel ak mat sëkk mu fas ci moom ak mat fu mu ko jëmale mu jëm fa eh, ànd ak moom eh, mu koy digal ay digal bokk na ci yi mu koy jox wérdu ci la bokk jox ko ay xeeti ñaan yoo xam ne daf koy ñaan xeeti ñaan yoo xam ne daf koy saxoo daa ko koy tëralal wenn tëralin woo xam ne moo ko koy moo koy keréyal boppam am na ñoo xam ne sax dañuy wax ne seeni wérdu yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen feeñu jox leen ko waaye lu ñu ci mënti doon wérdu yooyu ñu joxe am na ci ci biir wérdi bi ci biir wérdi yi yoo xam ne ay ñaan yu sax la waaye am na ci ñaan yu saxut am na ci yoo xam ne it niñ ko tëggee ak niñ ko tëralee ak lim yiñ ca joxe yooyu saxul kon wirdu yooyu ñuy joxe niñ ko tëralee ak niñ ko tegalee ak lim yañ ca joxe yooyu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dund bàyyi ko fi ànd ak loolu wirdu yooyu lañuy ñuy jox ñi nga xam ne ñoo ñu aju ci ñoom ñi nga xam ne ñoo leen def seeni wasila jox leen wirdu yooyu ngir ñu koy def ngir ne loolu moo leen di jegeel seen boroom wirdu yooyu nag dañ cey faral di gàll ay yool yu baree baree bari ku def wirdu bii nii di nga am nangam ak nangam ak nangam mag nangam wirdu yooyu dañ koy sart nga am ci ndigal boo ko jëlee wirdu ko dar koy wirdu noonu rek ci amoo ci ndigal benn kilifa joxu la ko benn ci ci kilifa yi nga xam ne ñoom am nañ ci ndigal joxu la ko doo ci doo doo ci mën a jëriñoo njëriñ lim digle ci wirdu yooyu doo ko am loolu di wane ak bidaa di wane ne loolu mënta nekk sunna ndax sunna yonte bi sallallahu alayhi wasallam yonte ci boppam wirdu yi mu jàngale muy ñaan yi mu jàngale ñu def ko suba ngoon ñaan yi mu jàngale nit ki di ko def ci anam yi mu mën a toll ci eh, dundam ñaan yooyu nit ki su ko jàngee rek mën na koo def du jar kenn di ko ci jox ndigal naan ko askaaru sabaaxal masaa yi jox naa la ci ndigal léegi dee ko def déedéet suñ borom ba mu joxee ndigal rek la ndigal loolu law ci doomu aadama yépp amul keneen kuy ñëw di la ci jox ndigal kon diine joo xam ne dafa am ñu jël ndigal li wala jël ay yenn xeetu jaamu yàlla mel ni ñoom ñoo ci joxe ndigal ñoom ñoo ko moom ñoo ci eh, ñoo ci soppaax niku nu mu leen neexee ne képp ku ci amul amul ndigal boo ko boo ko defee doo ko jariñoo loolu amul ci diine ji lu mel noonu amul ci diine moo tax diine ji ki yàlla reconnaître mooy ki yoon mooy ki mu ni mooy yonent bi sallallahu alayhi nit ñi loolu lañ war a xam suñ boroom kenn ku nekk mënoon na koo yónni waaye mu bàyyi fi ñëpp tànn yonente bi sallallahu alayhi wasallam yónni ko ci ñun kon kooku la ñu toppaloo kooku la ñu dégluloo kooku la déglu moom la ñuy topp lu mu wax moom la ñuy wax lu mu lu mu tere ñu bàyyi kon kon wasiila boobu nga xam ne mooy jël nit teg ko sa digganteeg sa boroom jàpp ne eh, yooyu mu lay jox ay ndigal yooyu mu lay jox nga xam ne ci boppam lay bàyyi ko wala jàpp ne ay mbir yoo xam ne moom nga koy defal di ko jox yooyu moo lay moo lay jegeel sa borom subhaanahu wa taala loolu amul wasiila mënta nekk lu dul koo xam ne daf lay jàngal loolu mu mën naa nekk koo xam ne li yonent bi sallallahu alayhi sa sallam indi nga xam ne bi muy dund moom la fi bàyyi woon wax ñu leneen nag waaye li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi nga xam ne xamoo ko mu jàngal la ko jottali la ko ne la yi lii la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ci buntu bi lii la jàngale ci buntu bële su ko defee nga ànd ak moom daal di jëfe moom du la ci ëppale dara du la ci tanee dara du moo la ci jox ndigal ndigalit loolu mooy wasila bi nga xam ne nangu nañ ko mooy boroom xam-xam boo xam ne day jàngale di jottali nga xam ne moom dalay jottali donc bu la jottalee ba noppi yow sax man ngaa gën a gëstu ba gën ko cee xam ba gën koo yaatal ba gën koo xam lu ci sunnal wala ci diine ji loo xam ne moom xamu ko woon bu la neexee dem ci keneen dem ci keneen mu jàngal mën nga ko mën ngaa am ay ay wasila yu baree baree bari ci jubluwaay bii ñu wax mooy wasila boo boo xam ne boroom xam-xam la bu lay jàngal waaye ñoom seen wasila yi ñuy wax nit ki benn rek lay am benn rek lay am am na ci sax ñoo xam ne dañ naan boo amee ab sëriñ mu def ko wasila kooku yow yow waratoo dem di seeti keneen di seeti di seeti beneen kilifa boo xam ne da ngay dem ngir tibb ci moom ngir sàkku ci moom mu yéege la loolu loolu waroo ko waratoo koo def yooyu yëpp di wane charte yooyu yëpp ak de tënk yooyu yëpp di wane ne loolu mënta nekk diine mënta nekk loo xam ne lu sax la ci diine ji diine ji amul bi ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee ba noppi amul keneen koo xam ne am na lum ci moom loo xam ne moom lañ koy féeteleel naan ko lii diwa ko féete lii diwa ko moom lii diwa koy joxe diwa ci joxe ndigal déedéet ميم صحابه يي صح ابو بكر عمر عثمان علي لي ني ماغ ماغ خلفاء الراشدون امول دارا تي دين دي لو خامني ньоم بونتي جوخيوون نيغال لول كين كو ديف ديدت ييب لو صح بايكو تي يونس صلى الله عليه وسلم نيت ني دنج كوي ديف تي داوون تي خار نيغالو ابو بكر داوون تي خال نيغالو عمر داوون تي خار نيغالو عثمان ولا علي بن ابي طالب كون لولو داي واني نكون جيمي ني ني تودي وسيله تي ا آه، دغين وو déggin woowu amul ci diine déggin woowu saxul euh, kon nit ki daal li ko war mooy mu xam ay faratay jëmmam yàlla farataal ci moom xam sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag mën na koo jàng ci ay nit kon loolu mënees na koo tuddee wasiila jàng googu mu koy jàng ci ay nit waaye bu ko jàngee ci nit ñooñu ba noppi nag nit ñooñu jàngal ko duñ am dara luñ ko ci gën a tane wala duñ am dara loo xam ne ñoo ko ciy jox ndigal wala di ko ci Eh, di ko ci tànnal lu muy def wala lu muy bàyyi bu saxee rek moom da koy daal di jëfee loolu la nit ki di seq ak moroomu nitam mooy mu koy jàngal di ko teg ci yoon waaye loo xam ne nag da koy tibb ci moom di ko jële ci moom ay leer yoo xam ne da koy jële ci moom wala jëmmi yu mu koy jox yoo xam ne di ko ci yar di ko ci di ko ci tàggat defe ne da koy jegeel yàlla loolu moom eh, bu wuteeg sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekkul lu dul ay xalaati boppam wala yoo xam ne day wax ne daa gént wala diwa ko feeñu jox ko ko yooyu moom du diine bokkul ci li nga xam ne mooy sharia wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waa cheikh bi kon ñaareel question bi dañoo gis suñu réew mi ñu bëri dañoo tënku ci tarixa ñuy laaj ba xam nit ki mën naa dund diinam ba pare ba ba am ngërëmul borom bi te bañ a tënku ci tarixa aywa salaam wa rahmatullahi wa barakatu waaw laaju ñaareel bi day dellu lu bari ci laaj bi nga xam ne moom lañ njëkk laaj ne suñ borom subhaanahu wa taala ba mu doomu aadama digal ko ne na ko jaamu bi mu ko digalee na ko jaamu daf ko wan nan la koy jaamoo te loolu mooy mu yebal ab yonent boo xam ne mooy leeral nit ñi nan la suñ borom bëggee ñu jaamoo ko noonu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw leeral loolu suñ borom wàccee alquraanul karim mu mu jàngale ko leeral alquraan Euh, jox ko li nga xam ne it mooy sunna jox ko li nga xam ne mooy sunna mu ànd ak alquran ñaar yooyu mooy balluwaay yi nga xam ne ci la nit ki di dellu ci diineem ngir mën a jaamu suñu borom subhaanahu wa taala ni ko suñu borom bëggee loolu nag yonent bi saa sax bi mu ko jàngalee bàyyi na fi ay nit ñooñu continuer di jàngale loolu mbir ma di law ba agsi suñ jamonoy tey ku ko bëgg a jàng mën koo jàng su ko nit ki jàngee nag da koy jëfee du jar mu xam ma sàmm lu jar mu xam ma demba lu jar mu ne feelaa tënku wala feelaa tënku ci liñ ko tënkuloo mooy ci lislaam ci liñ ko tënkuloo mooy ci li yonent bi sallallahu jàngale kon tënku wala faaw rek nit ci tënku ci tariqa ngir mën a dund ngir mu mën a nekk ab jullit loolu moom amul kenn koo xam ne wax na ko ci boroom xam-xam lislaam suñ boroom subhaanahu wa taala bu nit ci faatoo ñett yim koy laaj yooyu bokk kon mooy sa boroom ca sa boroom moom mën nga koo xam te doo xam kenn ci ñi nga xam ne ñoom lañuy wax ne ñoo yor tariqa yi man nga nit ki mën naa xam boromam ci xamin bu wér ca du ca xam turu kenn sax far waxuma laak muy tënku ci seeni tariqa ndax bu fekkente ne am na ku ko jàngal alquranu karim leeral ko ko leeral ko sunna yonent bi sallallahu wasallam moom dina xam naka lay jaamee borom naka lay jaamee boromam ak lan la ko yàlla digal yan àq mooy dox digganteem ak boromam mu wétal ko beneen laaj ba mooy euh, lan moo nekkoon kan moo nekkoon sa yonante kooku moom rek mooy ki nga xam ne nit ki nga xam ne nit ki mënta nekk jullit te xamu ko xamut ay mbiram xamut na la daan dund loolu faw jullit bi xam ko kooku rek lañu sant bu ko defee loolu it nit mën na koo xam ci jàng lim jàng sunna yonente bi sallallahu alayhi ñu jàngal ko ko mu xam yonente bi sallallahu alayhi mën koo roy ndax moom lañ ko roy loo beneen ba mooy mooy téere bi nga xam ne ci lay sukkandiku muy al muy alquranul karim alquranul karim loolu it nit mën na koo xam jàng ko te du xam kenn ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy askanale ay tariqa moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew kon daal amul fenn fenn fu nit ki mën a saxalee ne faawu nit ki balaa moo mën a nekk jullit boo xam ne yàlla dina ko gërëm jullit boo xam ne yàlla dina ko gërëm il mu tënku ci ay tariqa loolu amul fenn fu ko nit mën a saxale loolu euh, moom lu leer nañ kon daal ci gàttal tontu laaj bi lu ci ëpp euh, jàll na ci tontu laaj bu nekk ba di dem ci wasila ak yu mel noonu ndax ñaar yooyu relation bi nga xam ne moom la ñu am wallahu taala aalam aywa asalaamaaleykum su ñetteel question bi nag mooy ndax mooy lan mooy ràmm ak ndax nit mën naa romb nit aywa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu li nga xam ne mooy ràmb ràmb mbir la moo xam ne sax na mbir la mu sax ay alquran yi saxal nañ ko xadiis yi saxal nañu waaye ramb nag suñ borom moo ko moom suñ boroom moo moom ramb amul kenn koo xam ne moo moom ramb nga xam ne day am sañ-sañu di ramm ku ko neex di bàyyi ku ko neex moo tax suñ borom ne wax ne qul lillahi shafaatu jamia na nga wax ne lii di shafaa day borom moo ko moom lépp lépp ci loxoy suñ borom la nekk kon bu fekkente ne suñ borom mooy moo moom ramm loolu kon dañuy xam ne ñu bare bari niñ jàppee yowmal qiyaama mbir yi noonu lay demee ramb yi noonu lay demee nga xamne rek da ngay gis nit ko tok daane ne diw dana maram wala ci diw la yaakar ci diw la aju nga jàpp ne bo waxe lolu rek yowmal qiyaama mom daf lay bolé ci njabotam ne la ne la ram na la lolu du demé non ndax ram moomu ngir nak boko boo mëno ci am dogal lu dul ka ko jox la ci ndigal motax suñu borom wax wax ne man dha ladhi yashfau indahu illa bi'iznihi amul kenn kuy ramb lu dul suñ boroom da koy jox ndigal amul kenn kuy ramb lu dul suñ boroom daf koy jox ndigal kon kii ramb faw mu am ndigal suñ boroom wax ne wala yashfa'una illa liman irtada ñoom ñii ramb nga xam ne dañoo am ndigal duñu ramb lu dul koo xam ne suñ boroom da koo gërëm kon ñoom dañ leen di jox ñaari ndigal ndigal lu njëkk li mooy dal leen di jox ndigal ñu mën a ramb ndigal lu ñaareel li mooy kañi ramb dal leen koy euh, siteel suñ borom moo leen di siteel ne ràmbal diw ak diw ak diw waaye du caagante ne ñoom ñoo jug rek bu ne leen bu ne leen ramb leen ñu daal di ramb kale neex kon euh, suñ borom subhaanahu wa taala ramb mënta jàll lu dul ne suñ borom dana ci joxe ndigal lu dul ne kañuy ramb it suñ borom da ko gërëm suñ borom nag ka muy gërëm mooy ka am tawxid ka nga xam ne faatuwaale na ak tawxid moo tax yonent bi sallallahu alayhi di wax ne ki gën a yàlla ci sama ramb mooy koo xam ne wax na laa ilaha illallah xaalisan biha qalbuhu koo xam ne wax na laa ilaha illallah mu sell ci xolam mu dëggu ci xolam kooku moo gën a yayoo ramb ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam kon du càggante ne ramb liñ koy waxee la kenn ku nekk dafa am quota boppam nga xam ne ñoom lay ramb comme ñu koy diggee fii ci àdduna loolu du du demee noonu yomal qiyaama dëgg-dëgg ràmm daal ñu koy wax mooy suñu borom subhaanahu wa taala mooy mooy baaxe mooy baaxe ay nit ay jaamam yu baax ay jaamam yu baax ay ñoo xam ne dañ am nañ tawxiid mu baaxe leen jéggal leen jaare ko ci koo xam ne suñ borom moo ko digal mu ràmm ngir kooku suñ borom da ko koy terale da ko koy terale muy yonente yi dinañ ràmb siddiquun yi muy ñu dëggal ñi muy muy martaba bi topp ci yonente yi siddiquun euh, ñoom it dañu a ashuhada ñi nga xam ne dañoo dee ci yoonu yàlla dañ leen a rey ci xare boo xam ne ci euh, lislaam a ko taxawoon a jóg ñu rey leen ci ñoom it ñoom it dañu romb nit ñu baax ñi nit ñu baax ñi it dinañ romb gone yi nga xam ne it dañoo faatu majeur guñ faatu faatuwaale ndaw ñoom it dinañ romb yu baree bari dinañ romb waaye ñooñu ñëpp nag suñu borom da leen koy da koy terale da leen koy terale rek waaye fekk na mu naroon a jéggal kooku nga xam ne moom la ñuy ràmm waaye mu jaare ko rek ci yow ci diw ngir ngir daa ko koy terale daa koy cërale eh, mu daal di ràmm kooku nga xam ne suñu borom mm, nar na koo jéggal waaye nag kooka lañ ca wax mooy faw mu am tawxiid kon ab bokkaalekat koo xam ne da cee faatu ci bokkaale kooku kenn mënu koo ràmm kooku kenn mënu koo ràmm lu dul li ñuy wax ci eh, ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ràmm na baayam bu ndaw boobu di Abu Talib ngir suñ borom subhanahu wa taala wooye falal ko mbugalum mbugalum safara mu ne bu dul woon moom ca fa gën a xóot ca safara lay nekk waaye Eh, jàppale gi mu daan jàppale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci eh, woote bi dimbale ah, ak taxawu ko taxawu ci la ko ci lañ ko woyofalee mugal mi du solal ko ay dàll yoo xam ne yuur ga da cay bax loolu mooy mugalam mu woyof kon loolu tamit day wane day wane tàngaayu safara waaye lu dul loolu koo xam ne ci bokkaale la faatu moom kenn du ko mën a ramb di ko génnee safara di ko dugal aljanna loolu moom Euh, ay textes yu leer moo ci moo ko moo ko tegtale beneen ba ca topp it kenn ta ndogu ne diw sàngam day ramb kon yow balaa ngaa ñaan naan yàlla na ma diw yàlla na ma diw tinu mënoo xam ne diw sàngam day ràmb lu dul koo xam ne texte yi moo ñëw ne moo ñëw ne day ràmb mel ne yonte bi sallallahu alayhi wa waaye keneen koo xam ne yow yaa jékki-jékki rek daal di jàpp ne day rambu loolu amoo ci lu la leer ndax ak duggam aljanna leeru la koo xam ne duggam aljana leeru la nag eh, ak ràmbam eh, leeru la kon li gën mooy nit ki bañ a li li dal xel wala li gën a wóoru mooy nit ki baña a sukkandiku ci ay nit di leen yaakaar ci àllaaxira yaakaar ne ñooy defar ay mbiram yaakaar ne ñoo koy dugal aljanna waaye ci li mu war a yaakaar li mu war a basé wu mooy mu jaamu yàlla mooy ci ay jëfam ay jëfam ginnaaw yërmaane suñu borom subhaanahu wa taala bu jàllee mu nekk ci ay jëfam ay jëfam kat moom moo ko mën a xettali ginnaaw yërmaane suñu borom kon loolu pas-pas la boo xam ne képp koo xam ne gëm na jàpp ne moom ay mbiram baax na diw sàngam koy ramb kooku mu ci erreur bu mag a mag a mag mag ndax diw moomu xamul ne ba xam dana mucc wala du mucc kon ramb noonu la demee loolu mooy ci li nga xam ne moom la ko suñu borom subhaanahu wa taala waxee noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeneen yi nit ñi di wax yépp seeni waxi bopp la seeni xalaat bopp la seeni bëgg-bëggi la ak it cee am ñoo xam ne seeni i la ñu koy naxee doomu aadama yi ngir gën leen a téye ngir euh, ñu gën a euh, ñu gën a am ak gëm ak ngëm ci ñoom moo tax ñu leen wax yoo xam ne ñëwagut ak di leen ko dikk wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina